Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité la cloche de notification. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di leen dalal jàmm ci seen télévision Equivox TV di leen wax ni euh, ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom mooy Garga gannaaw bi nga xamante ne combat am ak Mama Lamine taxaw na. moom Garga 2 ñu ñëw pour xam euh, jël réaction am moom it euh, mu wax ñu gannaaw bi nga xamante ne adversaire ma Mama Lamine gis nañ ko mu wax wax combat bi lu mu ko jaral wax ci adversaire am également waaye mbokk yi balaa Garga 2 di dugg dama leen di wax ngeen gaaw abonné ci seen télévision Equivox TV ngeen activer euh, notification bi parce que lépp loo xamante ne jëm na ci làmb ji ça sera en direct et en exclusivité en exclusivité sur votre chaîne TV salaamaaleykum Garga. waaw maa ngi lay fay Cheikh Omar ah, di nuyu waa Equivox TV di leen wax ni wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci interview bi ginnaaw lool bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal yàlla na suñu borom yërëm te xaar nañ ci àjjana firdawsi di jaale Jules Baldé Junior di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom yërëm te xaar ko ci àjjana firdawsi sama village nag dañoo am dëj suñu yaay suñu maire ñu naan ko su maire Rama Gueye ñu koy jaale waa Ndande Fall gépp dafa gaañu démb. di ko jaale famille bi di ko jaale taawam bu góor ñu koy wax Ibra Diop ak ñoom Anta ak ñoom Ousmane ñoom ñëpp maa ngi ko jaale famille bi yëpp di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko suñu borom yërëm te xaar ko ci àjjana firdawsa di jaale suñu papa Gaston Mbengue di ko wax ni jéem nañ koo jot waaye yàlla jot jotuñu jot ko téléphone waaye ñu ngi koy jaale suñu maam jooju jóge fii di ko ñaanal yàlla ko suñu borom yërëm te xaar ko ci àjjana firdawsa ñu géej laa gis ci làmb lu tax non du sama coobare nag ndax boobu promoteur yaa ngi may contacter pour aller adversaire waaye choix yi ma bëggoon ñoom ñoo bëggul woon bëreek man looloo waral samay année blanche. Hmm. mais est-ce que nga jóge euh, yaakaar naa ci defet ngay choisir xam nga est-ce que du looloo la tardé loo. non choisir ma xam nga ñi may su man sama objectif mooy chaque jour damay bëri ñi nga xam ne ñoom laa bokkal génération soo gis garga laaj koo xam te ne warul bëreeg moom. Hmm. samay morom rek man maam man sama carrière dama dama ci am objectif boo xam te ne damay bëgg di bëreeg samay morom fu ma toll. sa combat gone yi di la wër bu ma waxee gone gone nga mais ñi nga xamante ne nouvelle génération la ñu ñu nekk euh, ñoo xamante ne làmb da leen bàyyi xel lool euh, Mama Lamine bokk si ñooñu mu teg la choc mayu la dara ba nga jël avance am lu tax. Mama Lamine d'abord dama koy encouragé di ko félicité ci geste bi mu def parce que bu ko neexoon du du ma jël. ndax xew na am na coow. gaa man maa koy tàllal loxo man maa koy may chance pour ñu bëree waaye amoon ji am na fu mu doon tool bu doon beneen mbër bëgg lu yomb mën na nekk di wiir yeeg wër-wëral bàyyi fi teggi fi Garga parce que Garga 2 yombul lu ci mën a xew kon bu amee sañ-sañu jël ko rek ñun dañ ko ci encouragé di ko wax ni combat bi lu mu ko jaral rek jaral na ñu ko ëpp waaw. lu mu ko jaral jaral na lu ko ëpp lu tax. waaw parce que dama toog trois ans année blanche te retour Garga ku nekk xam na ni yombul. car macha allah ñun dañuy fonk bis respecté ko di ko jox àq ba mat sëkk kon bu nu amee tookee trois ans bëréwul yàlla dogal waa Equivox TV ñëw taxaw suñ combat ak Mama Lamine dañ koy jël au def ci liñ ci war a def yëpp bu entraînement jotee dinañ entraîné bu doole jotee dinañ wut doole dinañ ànd ak suñuy mbokk waajal suñu mbokk bu baax boobu bu ci làmb ji dinañ xam ni Garga 2 ñëw na. ma seeti ko ne ko dañuy wax ni Garga bokk na wala. boo dàqul bari parcelle bokk nga si ñi fi dàq bari dàq fi xeex mu ne calculé wul loolu ci yow. non moom li mu wax li muy wax moom la concerné quoi li mu gëm waaye man combat bi ku ko xam ku xam Garga xam ni combat bi bu fonk la. comprendre nga. du làmb yaak Mama Lamine. waaw bu fi ma teg sama bët du Mama Lamine moom fay teg. mais sa waay Mama Lamine nga may wax de Mama Lamine barki Dembo Ndiaye li mu tegle ci ay victoire ñu ni déet waay bu arbitre sifflé mu ñëw sa kaw indi la giita ngaas waaw d' accord Mama def na ay performance yu baax waaye bul fàtte ni Garga ñi ma bëreel Mama Lamine bëreewut ak ñooñu de ñi ma daan ak ñi ma daan ñëpp képp koo ci boo booleeg Mama Lamine dina xam ne am na combat comprendre nga làmb ji làmb ji ma fonk la bu ma respecté la. mais est ce que du lu mu nekk ci yoon moom moo tax gars yi ne est ce que nekkul sax favori sa kaw. non fii ñun ñëpp nekk ci yoon xëy na nag am nañ tuuti arrêt bu ñu def. xoolaat li ñu a xool te am na nañ yaakaar ne bu ñu jógaatee lépp lu mbër de am incha allah rabbi ci làmb den ko am. mais pour loolu il faut nga jaar ci kaw Mama Lamine. non jaar ci kaw Mama Lamine ci kàttanu yàlla incha allah rabbi day am. mais confiance bi ngay waxee lan moo tax Mama Lamine ar bi dafa sifflé moom jokkeel mayu ko dara saax saaxi ko jëlee ko fi yow nga bëgg a taxaw ne euh, je sais pas jaar ci kaw. waaw Mama lamin jàmbaar la jàmbaar la borom fit la borom jom la waaye na xam ni jàmbaar dëgg lay dajal koo xam te ne du ko may dara ci àdduna ñu ngi naan day dox sa kaw maama leen bu arbitre soufflé ku xef doo gis jël bi maam moom parce que xam naa ne day ñëw te man du ko xaar. doo ko xaar déedéet. doo kon xam naa ci air bi la daje. ku xef du gis kombaa bi euh, jël bi parce que da lay song si. non moom jàmbaar la moo tax ma wax la loolu xam nga mbër boo xam te ne dafa ñemee. am fit am jom te bu arbitre soufflé day def fulla ak fayda man aussi damay def fulla ak fayda moo tax ma ne ku xeef doo gis jël bi parce que ñun ñaar ñëpp ay ay dem kat lan. kon doo ko xaar di ko calculer yooyu. ak ni mu ni mu ni mu ni mu tàmmee di song gars yi. man maamu la lan laay calculer ci moom mbër la comme mbër yi fi nekk ñun li ñu war a def mooy waajal suñu bopp ànd ak suñu mbokk suñu am di jàmm bu bis baa ñun ñaanal ko wér ñaanal suñ bopp wér boo jàpp date beeg jàmm ñu daje arène nationale incha allah. mais no boo bu ma calculé wul dara ci moom te mu bëri qualité lool doy waar am sañ-sañ. non parce que ëpp ma qualité moo tax moo wax ne calculé wu ma dara ci moom parce que dàqu ma bëre xeex bi ñuy wax dàqu ma ko te kaar macha allah ëpp ma doole. dàqu la bëri. déedéet xalaatu ma ci wàllu mbëre yaa ko bëri wala moo la dàq. moom mën naa ko jàngal bëre. mën nga jàngal Mama Lamine bëre. mën naa ko jàngal bëre. lutte pure yow yaa ko dàq. maa ko dàq fuuf sax bokkuñu sax. lan tax bokkoo leen. non xam nga làmbo yàlla dafa dogal ñun dañ ko tarbiyu maanaam bàyyiwuñu ba làmboo xew nii rek ñu ñëw ma làmbo def nañ ci jalo jaloore boo xalaat rek def nañ ko ci làmbo surtout ci wàllum bopat comprendre nga boo xoolee suñuy bëree dóor sax da ngay xam ni ñii car macha allah dañoo mën a bëre même bu fekkente ni dañuy ñëw di bëre di ñàkk sax dangay xam ni kii bërekat la. Mama Lamine tamit bërekat la de. ma du bërekat mais da nga ko dàq. dama la maa ko dàq bëre pire bokkuñu sax. mais xeexkat la tamit. maam Lamine dàqu ma xeex. maam Lamine dàqu la xeex dàqu la bëre. dàqu ma xeex dàqu ma bëre. maam yéen waa Equivox TV bi. dama leen sant bu baax te xam ne combat bi ñu ko bëggoon bari na. Hmm. leen ñaanal aussi bépp loo leen ci xalaat rek ci réussir suñu borom defal leen ko. parce que làmb ji làmb joo xam te ne la ju neex lay doon incha allah ci côté yëpp nag. làmb sañ-sañ la. non làmb ju neex lay doon déggoo ma la làmb joo xam te ne la man ni ma ko déggee muy waxee xam naa ne am na sañ bu baax ci boppam. non moom daf la ñeme nee na boo ko tegee ci bëre nee na ma laax bëre doole kenn waxatu ko xeex moom nee na bu ko sax xalaat. yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm xam nga fi doon ne li nga saaga yàkkamtee xeex la. moom lañ bu ndajee ci géew bi dina xam ne ñi mu doon bëreel ak Garga 2 am na différence la. mais est-ce que tamit ñi mu doon bëreel mel nañu ni euh, Mama Lamine. non Mama Lamine boo xoolee xale yi fi teewoon yëpp maa leen njëkk a ku ci mel ku ci mel ku ci mel ni doomu dàngu car macha allah champion la dafa mën a bëre mën a bëre mën a xeex bu yàlla dogalee ba ñu dañoo bëre ba naaw ma freiné ko. nga ñëw ci Valdo musul daanu ba nii may wax yëpp jeexal na leen mel ni man maa ko daan ah, nga ñëw ci ndoof di daan xale yi mu boo ñëw jàpp ko daan ko comprendre nga ñun daal li ñuy ñaan di ko ñaan suñu borom mooy yàlla nañu suñu borom mooy fan fekkee ak tal ak wér ba bis ba ñëw jàpp moom Lamine bëreeg moom duma ko daan ko ci kàttanu yàlla. si Bour Sine rek mi nga xamante ne daan na ko rek doy na ci wàllu ni sañ-sañ sañ lay bëri. dégguma néew ma la nee naa sama biir wax am na sañ-sañ waaye ki muy dajal da ko sañ-sañ lépp lu muy wut ci sañ-sañ maa ko fuuf ci biir bëre. da nga bëgg wax ni bu ñu rëwi yow yaay favori. non favori du ma ko wax parce que favori leneen la waaye wàllu bëre pur ñu waaj takk jaaj yi Garga de rek wàcc def njub lamb jooju dina doy waar de maa la wax loolu te lamb ji waa parcelle ko soxla. fan la toll Garga de lamb ji. non maanaam man pour man tey tey laay soo a commencé bëre ci lamb parce que taxawaay bi xaw na yàgg arrêt bi def trois ans affaire yooyu léegi nag bu fekkente ne dama ñëwaat pour wane wanewaat sama boobu dafa am lu ma war a wane te ci maamala mi incha allah laa ko bëgg a commencé. cher terrain bu bees bu Garga de incha allah waaw. parcelle fan la leen làmb ji toll. waaw parcelle dèjà rek koo wax mu la eh combat la xam nga nangam sangam affaire yooyu waajal ko parce que dañoo làmb namoon retour de Garga ci làmb ji. moo tax làmb ji maa ngi woo waa parcelle gépp moom ba 26 di woo waa golf sud gi xam ne sama supporters yi nekk foofu di ko bàyyi ci loxoy Bantamba di ko wax ne mobiliser waa Cité fajaa aussi du ma leen bàyyi ginnaaw parce que fa laa dëkk gént ba un gént ba deux xam nga waaye inte six maanaam su ma limee damay juum waaye parcelle un ba vingt six inte quatre ay say doole ay say écho xam nga case bi amoo maa ngi woo ñëpp ñu mobiliser bu baax a baax combat bi dama ko fonk de. wàllu mobilisation bi yaa ko tudd léegi dañ cey waxtaan mu ne loolu seen domaine la tarkindaa yi lépp lu jëm ci wàllu mobilisation seen domaine la stade bi nee nañu ñoo fay ëppale képp ku ñuy bëreel. waaw ñoom seen bëgg-bëgg lañ wax te wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal aussi ñu mobiliser bu baax parce que tamit promoteur bi bu ñu tëggee loolu la ci bëgg pour wàllu mobilisation arène bi fees ñun lépp luñ ci mën den ko def parce que aussi dafa am lu ñu bëgg a wane ci côté boobu parce que ñun aussi yàlla dogal nañu ne car macha allah dañoo am mbooloo am ay supporters amateurs yi bëgg ñu comprendre nga kon bu ñu ñëwee rek dafa am leneen lu ñu war a wane parce que boo toogee trois beneen mobilisation boo xam ne dafa war am pour ñoo xam ni kii mën naa bëri waaye mbëri ñoo koy moytu. mais bu la mbëri moytu Mama Lamine moytu la de. non moo tax man la jàmbaar la parce que aussi Garga fekk ko mu nelaw nga yee ko yombul la te Mama Lamine loolu la def. est-ce que tooñul. non tooñul xëy na wax dëgg yàlla dafa bëgg bëre am lu mu bëgg a wane waaye lépp lu mu bëgg a wane rek li ma li nekk ci sama yaram ma war koo yee dafa bëri hmm? mais mais mais Garga yow da ngay foo nii di neexal nii wala nu mu demee noonu. non yow nee naa même fekkente ni damay bëre di daanu sax da ngay gis ni bëre pire da ciy feeñ. Hmm. comprendre nga ñu ngi koy ñaanal ndam loolu jikko moom Tyson 2 comprendre nga parce que tamit ñun aussi làmb dañ ko dañ ci am luñ ci war a lépp teraanga bu ci mbër am rek am nañ yaakaar ne mënoon ko ci am bu fekkee jàppale yëpp ñëw na. parce que car allah bu dee entraînement nangu nañ koo def bu dee am combat jox ko àqam dañ koy def xam nga. li ci des nag mbiru suñu borom la may dañ koy ñaan rek mu kàttanal ñu may ñu doole ba buñ ci eggee ak jàmm suñu borom dafa ñu si ndam bu sedd guy bu amul benn werante ok euh, yaa ngi ko wax léegi Parcelles Assainies yi dañoo soxla euh, li nga xamante ne moom mooy làmb ji euh, ñuy dégg Garga jóge na dóor dóoraat jógewul dóor dóoraat day fekk ji jàmbaaru wrestling demul jàmbaaru wrestling 100 euh, pour cent parcelle bi ak Garga nu mu demee. non 100 pour cent bi man man maay 100 pour cent bi parce pour cent bi bokk naa ci ñu ko créé. Ah parce que boobu ba léegi yàlla dafa dogal ba réew ma fi. Hmm. waaye bokk naa ci ñu mobiliser ba tey jii 100 pour cent egg si fi comprendre nga man pour man parcelle yëpp benn la ma nekk doo dooraat alors ma dem jàmbaar Wrestling Academy yépp benn la génn ma parcelle. Hmm. comprendre nga loolu weesoo aussi maa ngi woo sama waa dëkk bu baax waa Ndanda Fall yi. ak sama mbokk ñeeño yi bala may say di leen wax combat bi dama bëgg ñu wane ci seen bopp bu baax di woo waa Medina uude yi nekk foofu yëpp wax ñu mobiliser garga daal incha allah li mu war a def dina ko def di woo waa Ndanda Fall Kébémer Louga Ngaye Mexe ah Kell Palmeew di woo 42 villages yi nekk ci ginnaaw ndànd gépp di wax ñu ñëw jàppale seen doom ñaanal ko yàlla may ko ndam ci komba bi mu jëm. Mhm. mbiru parcelles yi yaa ngi ko wax léegi cent pour cent bi yéen a ko euh, taxawal entraînement yi bu contact yi jotee maanaam yow ban écurie la wala écurie bu la jot bu la neex rek entraîné. non man tey su ma neexee dem entraîné ji door dóoraat kenn mënu ma entraîné dóor dóoraat parce que man produit dóor dóoraat la hmm. comprendre nga su ma amee sentir dem ci Moussa Dioum entraîné ji damay dem entraîné ji su ma amee jotu dem organiser entraîné ji damay entraîné parce que ñun ñëpp fu ma ci woon nit tey mbër bu mën a doon su nga bàyyi sa yitte fekk si ma parce que man maa ñoom nag ñoom war a delloo sama monnaie di ñaanal Papa Sow mbaam bi mu jëm aussi yàlla defal ko ci ndam bu sedd guy bu amul benn werante moom it grand bu baax la di nuyu suñu papa nag suñu père ba waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm ku ci mel ni sama ménagère Basirou Ba bu baax a baax di nuy tamit staff Dóor Dóoraat bi ku ci mel ni sama grand frère Aline Mbengue kooku sama papa la du sama mag papa ci man Cheikh Thiam xam nga ñoom Père Gora di sant waa parcelle gépp di woo ku ci mel ni sama grand Xaadim Touré maa ngi koy woo bu baax a baax di wax combat bi combat am la moom Cheikh Fidior doomu ndeyam di wax combat bi seen combat la maa leen sant bu baax. Modou Matar ja ñu ngi koy gërëm bu baax waa Darou Salaam cosmétique ah di nuyu Modou Matar parce que toogaxawaay bi yàgg na te am na ñoo xam ne dañ cee pare woon pour jàpp ci ku ci mel ni sama. grand Sadex Baabu maa ngi koy woo ak El Hadj Baabu xam nga bado di nuyu waa Italie ñoom mbay Fadia xam nga Jules ah grand Séni dem ba Rome nuyu Xaadim Touré Xaadim Joxaane maa ngi koy nuyu bu baax parce que gis naa taxawaayam ci man xam nga di nuyu ñoom Fallou gars yi nekk foofu yëpp waa Rome yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom grand Tafa Ngom xam nga. Dia maa ngi koy nuyu bu baax ah di nuyu ñëpp daal sant naa ñëpp gërëm ñëpp. Euh, balaa maa ñëw ah balaa maa ñëw ci yow ci Vox Arena ni nga gisee ni mu dikkee ci làmb ji ah, ñu ne déet mu tëgg ay combat yu amam solo am yeneen yoo xamante ne incha allah bëgg nañ ko euh, tëgg mbokk yi ñu leen di fàttali comme ni ko Garga waxee supporter am yi am na lu bëri loo xamante ne ci promotion wu làmb ji daañu ko def bu soobee yàlla ak Garga mais également ak adversaire am muy Mama Lamine également combat Tyson ak Franc bi aussi daa ñu def ay promotion yu am am solo ndax xam ngeen ni bëri na ay mébét yoo xamante ne daañu ko def pour gën a jaay làmb ji Vox Arena gën cee dem kanam Equivox gën a dem kanam mais également mbër yi ci wàllum image ci wàllum yokkute ñoom it ñu yokku parce que loolu moom mooy sunu euh, euh, sunu xam-xam loolu moom mooy sunu credo euh, nan nga gisee Vox Arena ni mu ñëwee déjà ñu ne bëreet ñu tëgg combat Tyson 2 ak Franc dëkk parcelle ñu ne waaye ñu dàbbali ci Mama Lamine ak Garga 2. non Vox Arena moom macha allah li leen di ñaanal rek mooy yàlla la fa leen cat. ñu àggaleek seen sago parce que am nañ yeneen ñuy dégg ci suuf yeneen ci yal na ko suñu borom mottali di leen ñaana lépp loo xam te ne rek am ngeen parce que tamit nit buy dugg ci dara dara tax yàlla defal leen ci tawféex ak xéewal bu baax di nuyu ki nga xam ne moom laa àndal muy disco jaag moom côté mobilisation bi ci loxoom la ne parce que moom maa moom dañoo yàgg démb la di nuyu sama gars yi xam ne nag samay gars yi bopp la ñoom chaque jour maa ñoom ñooy nekk ci mel ni Ibou xam nga fii soo ah ñoom Youssou mbay Omar Kébé xam nga booy yi parce que ñoom dañuy sonn ci man bu baax a baax booy 15 ans di leen wax ni combat seen combat waa nt waa SAS di leen wax ni leen ñoom tamit dañu waaj bu baax parce que dèjà rek booy ñu ngi commencé di xalaat ay affaire yu doy waar parce que combat bi daf ñor comprendre nga te bëgguma waa jàmm gën yóbboo leen ko di nuyu waa ginnaaw raay tali bu mag Pikine sama mbokk tëgg yi nekk foofu xam nga waa Massé Waranka waa Dalifor di nuyu sama nijaay Thierno Seck. ñu sant suma waa kër bu baax sama bàjjen maam say Seck ñoom Biram caam ak soxnaam maam Diarra di sant sama soxna tamit Amarita ko maa ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm di nuyu sama gore yi xam nga sant naa ñëpp di leen wax ni daal combat bi taxaw na na ci ñëpp jàpp bu baax a baax parce que combat bu ma fonk la bu ma respecté la. parce que maam leen bu fekkee ne combat bi dañ koo jël nii rek pour parce que dañoo dafa nekk ci yoon yoon ñu jël ko pour non non mm. ñoo jël ko pour daan ko. jëluñu ko sax pour nekk fi di négocier ak moom. xëy booy bi dana jafe de. xam nga yàlla mooy dogal mooy li may wax rek waaye li ñuy ñaan mooy suñu borom yàlla ñu suñu borom kàttanal may ñu xel mu sell may ñu wér ña ña di ko ñaanal wér moom bu baax a baax. ba bi sifle génn seen diggante. waaw bu boobaa nag dinañ xam kan mooy kan. ngeen war a tase. làmb jooju ragal naa ne làmb ji dàq ci arène bi arène ci lay bokk. arbitre bi sifflé amul round d'observation ku yi takkar naa ah yaa yaakaar naa su bàyyiwul maninam de du am lool du am loolu. duñu yàgg déedéet. combat bi du yàgg. yaakaar naa ko. ci yàlla ci li ma gëm man. waaw di sant rek di gërëm ah, encore sama papa sama xarit. père ba gis naa taxawaay bi mu am ci ñun xam nga. ñoom Mansour ñoom Mbaye ba njabootam quoi parce que ak mère Dramé bu baax parce que kër googu. buñ fa ñëwee dafay am lu muy def di woo nuyu ku ci mel ni sama grand mor bu parcelle xam nga am di Moustapha parce que ñoom tamit ak jaag parce que jaag aussi yàgg na jàpp di ñu jàppale xam nga di nuyu sama benn grand bu nekk Brésil Baara maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit Ngom Ngom ah Daouda Ngom maa ngi koy nuyu bu baax Daouda Ngom Brésil parce que moom it ndeysaan day werante ci garga de di nuyu waa Côte sama mag yi nekk foofu ñoom maam Samba di nuy sama grand frère sama taw papa ginnaaw yàlla mooy sama xalifa fii mu Modou Diouf maa ngi koy ziar bu baax a baax sax Modou Gueye maa ngi koy sant di ko gërëm gis naa taxawaay bi di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom bàyyi ak jabootam di woo waa parcelle yëpp nag bëri yëpp baay bàyyiwuma kenn ku ci mel ni Garga Mbossé ah ku ci mel ni Modou Xarañ Lo maa ngi koy woo ci combat bi. parce que combat bi combat bu ma fonk la bu ma respecté comme combat bi dee soo ko taxaw ne woo naa ñëpp bàyyiwuma kenn. di nuyu sama grand Moussa Dioum aussi seq nañ jàmm xam nga Baye Pël maa ngi koy nuyu Ramdan depuis États-Unis maa ngi koy nuyu bu baax parce que moom ndeysaan depuis combat bi taxaw ba léegi chaque instant mu ngi woote di nuyu sama copain sama xarit Camara maa ngi koy nuyu bu baax sama coach di woo Mbës ah ñoom Cheikh Cambrène depuis ah di woo waa Cité Fadia gépp bàyyiwuma kenn rawatina nag Franc ñoom góor a soog samay nit lan ñooñu samay doomu ndey lan comprendre nga maa ngi ñoom waaw Franc sama taalibe la sama xarit la di ko ñaanal combat bi mu jëm yàlla na ko ci yàlla defal ndam xam nga di ñaanal góor soog tamit yàlla na ko yàlla may combat balaa yàgg ah di nuyu sama doomu ndey Moussa Balla Gaye ñoom Bour Sine sant naa ñëpp ko parce que aussi boo limee rek di nga lim ñi bàyyi ñi waaye maa ngi woo ñëpp di leen sant di leen wax ni combat bi nañ ci dem ak jàmm rek incha allah waaw Vox Arena ci kaw ci kanam noonu lay demee mbokk yi noonu lay demee gis ngeen Garga gannaaw bi nga xamante ne euh, répliqué na euh, ki nga xamante ne moom mooy Mama Lamine euh, ñëwoon hmm, seen combat mu nekk combat bu ama am solo hmm, comme ni mu ko waxee Vox Arena taxawal ko de même que Tyson 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Franc donc ñu leen di wax mbokk yi comme ni doog a ñëw ñu leen di ñaan rek di leen wax ni ñu ngi seen ginnaaw ngeen yokk jàppale bi ah, ñu ngi leen di wax ni bëggal leen rek ñu tax a jóg Ah, bëggal rek a ñu tax a jóg di leen wax ni am na yeneen euh, yeneen tournage yoo xamante ne ñu ngi koy waajal euh, ak sunu mbër yi nga xamante ne ñoom la ñu euh, tëgg ak yeneen affiche yoo xamante ne bëgg nañ ko donc ñu ngi seen kanam di leen tàllalaat loxo bu baax a baax a baax maa ngeen rek élage ñu ñëw fii daal di def tournage bi di remercier bu baax a baax Xadim Anta Seck sama sama doomu ndey Xadim Anta sekk di ko siyaar ku baax la gëm waa parcelle bëgg leen maa ngi ñoom benn xamante yàgg na wax dëgg yàlla ni ma ko mos a gisee mosul changé nit baax la nit koo xamante ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom lafal cat suñu borom defal ko xéewal di nuyu suñu caméraman El Hadj ñu ngi koy nuyu bu baax taxawal liggéey bi rafet na yàlla na borom defal cat ragaloon quoi Cheikh <laughs> non fii dara ah. di yi dañuy tooñ rek xam nga moom moom waaye ñu ngi nuyu waa Vox Arena yëpp ah di nuyu promoteur bi wax yàlla na ko suñu borom defal jàmm bëggee voilà merci beaucoup merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di remercier Cheikh la woon ànd ak El Peace. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.